mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ni ngi daje fii ci ngent ci sifaatullahi si xadara cheikhu Umar Njëgeen yàlla na fi yàgg te wér daje ngir bis bi nga xamante ni incha allahu moom la nu dëtmal muy bis bi nga xamante ni di le 28 décembre incha fii ci ngent ci sifaatullahi muy bisu sant sunu borom subhanahu wa taala di bisu gërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu ànd koog sunu sëriñ sunu wasila sunu yaakaar muy cheikhu Omar Ndiéguène nu koy defit incha allahu si ndëgalu sëriñ miniru Ndiéguène di xalifa alaaj ahmad baro di xalifa alaaj muhammad njegéen ak rakkam yépp ak askanu njegéneen gi yépp di woote nag ci bis bi muy bis bi nga xamante ni bisu yàlla la ak yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bis la boo xamante ni benn bis la ci ñun nu ànd koog sunu sëriñ Cheikh Oumar Ndiéguène bis nag ni nga koy def ci jëfin boo xamante ni ci ndigalu Cheikh Umar mooy bisu jullit yépp ngir taxawal islaam ngir dëgëral islaam ngir yaatal islaam ngir fekk islaam waane ngir jariñ islaam jariñoo ci islaam muy bis boo xamante ni amul kenn ku nu ko jagleel te amul kenn nit ku am dayooy bis bi nu jagleel la ko kudul yàlla ak yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag bis boobu jib si na nu fas yéene def fii ci ngent ci sifaatullahi ci xadara bii toog fii nga xamante ni mooy xadara Cheikh Oumar bii nu fas yéene jox Idrissa incha allahu mu joxale ci programme bi su ko defee su àggalee incha allahu nu mottali liggéey bi Cheikh Idriss bismillah auzu billahi min alsheytaani arrajim alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu santee yàlla li muslu si seytaane ñu ngi nuyu ñëpp di jiital nuyu bi sëriñ Cheikh Omar Ndiéguène suñu wasila yàlla na ko fi yàlla bàyyi suñu kanam si mbaax yonent ci yàlla muhammad alayhi damay ñëw rek jublu si programme bi comme ni ko sëñ an su waxee 9 heures 10 heures rabbuna il y de les deux raaka de El Hadji Omar Ndiéguène ñaari raaka yu nga xamante ne daf koy def chaque année boole ko ñaan bi muy ñaan muy téere bi si mbaax yonent yàlla Muhammad yàlla na ko yàlla daf ñu fekkee ko ñun ñëpp. 10 heures 11 heures lecture du Saint Coran dañuy wàcce kaamine bi nga xamante ne dañ koy def chaque année tamit si biir journée bi de 11 heures à 13 heures accueil des invités dinañ dalal gan yëpp incha allahu rabbuna fu waay munti jóge si àdduna bi dinañ la dalal de 11 heures à 13 de 13h à 15h la restauration muy wàllum sédde berna yi dina am berne yu bari yu nga xamante ne incha allahu rabbuna dina fi am ñi ngi ñaan yàlla képp ku nga xamante ne fépp waaye waay euh, jóge gan boo munti nekk incha allahu rabbuna di nga ci xawlu parce que lépp mu ngi fi de 15h à 17h il y la grande conférence animée par Serigne Cheikh Ahmed Sall Ndiéguène mi nga xamante ne chaque année dafa koy def day def waxtaan bu am solo ni jox ko benn tam défini mu daal si waxtaan daal di jë ñëpp daal si jëriñu. de 19h à 20h mooy les chant religieux animés par notre guide spirituel Serigne Bada Ndiéguène et son groupe moom day ñëw def ay ñaan yu baax daal si way ñëw bàkk yonent ci yàlla Muhammad alayhi salaatu wa après su ko defee Serigne Cheikh Omar njegen daal di jël kàddu bi si kar bàkk baatu bi nga xamante ne. mooy baatu laa ilaha illallah baatu kalimatul xaq bi nga xamante ne moom la ci yàlla muhammad daan woote 13 ans mu koy woote si mbaax ci yàlla muhammad yàlla na si yàlla yóbbu ak jàmm mais si biir loolu il y deux grandes activités phares qui vont se tenir la première mooy ban exposition green c'est un moment fort moment bu nga xamante ne dafa nekk histoire famille Ndiéguène lépp lu si waay bëgg a xam fépp foo munti nekk si àdduna boo ñëwee jour boobu incha allahu rabbuna di nga ci am bépp idée bu nga xamante ne soxla nga ko ci la deuxième mooy consultation gratuite bi nga xamante ne ce sont les amis de l'hôpital ñoom ñoo koy def de l'hôpital El Hadj Ahmad Sahir Ndiéguène dirigé par Serigne Cheikh Fadel Ndiéguène ñoom dañuy def benn consultation gratuite ci jour boobu ñu ngi ñaan yàlla tamit ñëpp ñëw si daal di def parce que ay njariñ rek la journée bi daal ñu ngi si ñaan yàlla lépp lu nga xamante ne sabalu nañ ko si yàlla nañ suñu borom yóbbu si mbaax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daañu si defal salaam rahma ak waa baraka maa ngi jëlaat kàddu bi di ko jox sëriñ Cheikh As Ndiéguène si mbaax yonent yàlla macha allah ñaari rakk yooyu rek la ñuy leeralaat muy ñaari rakk yu am solo yoo xamante ni ndax euh, loo gis am na lu ko waral Cheikh Omar oote mbii mu oote ni ñëw leen ñëw leen ni ko Cheikh Omar lan ngay ootee mu ni ñëw leen nu ànd jaamu yàlla ñëw leen nu ànd sant yàlla ñëw leen nu ànd sant yoon yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh bis bi nag mu xam ni li ko yàlla defal moom Cheikh Umar ba mu càmbaree boppam xool li ko yàlla defal mu nat li ko yàlla defal xam ni lépp mbaaxu yàlla rek la ak yërmandeem mu ni man dey lii ma yàlla defal xam naa ni yàlla daal ak coobareem mag bëgg-bëggam la kon man war naa sant yàlla ci loolu waane war naa woo ñëpp nu ànd bokk sant yàlla ci li nga xamante ni yàlla defal nañu ko moo waral cant cant gii nuy def incha allahu rabbi su ko defee ñaari rakk yooyu da ci su ko defee ñaari rakk yi ba pare jàng téeréem bi bàkk yàlla bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi ci lépp lu yàlla bind mu julli ko tolluwaayu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàkk yonent bi nag ñaanam gi ñaanal jullit yëpp ñaanal ñëpp ñoo xamante ni ngi taxawee islam ak kilifa diine yëpp ak mboolem julli yi loolu su noppee nag kaamil bi jàng sunu baay Cheikh Kàññi Njëgéen moo koy jàng chaque année ànd kook taalibe yi su paree mu euh, tëj xatmul Qur'an bi incha allahu rabbi loolu nag dafa am solo lool macha allah kon su ko defee nun ñëpp itam nu xam ni bis bi noonu la bis la boo xamee daal bisu sant la bisu gërëm la bisu ñaan yàlla la su ko defee incha allahu rabbi lépp loo xamante ni nit bëgg na koo xam. si taarixu alaaj ahmad njegéen taarixu alaaj ahmad baro taarixu njegéneen lépp nga bëgg ko cee xam loo ci bëgg a xam inchaa allah soo ñëwee fii daanu ko ànd ak yow nga xam lépp loo bëgg a xam inchaa allah rabbi di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala yàlla defal jàmm julit yëpp yal na yàlla boole nu defal jàmm nun ñëpp nu fekke ko te tal ko ci baaxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko defee yooyu kàddu rek la doon yëkkati si ndigalu Serigne waane si ndigalu président Sandoumbe Sey waane sindigalu ndigalu waa kalimatu xaq yëpp xam ne daal lii da daal mooy oote bi oote bi daal mooy Cheikh Omar la mu wax di ko biral saa su ne mooy ñëw leen li ngeen am jël leen ko ngeen jox seen ñaari wayjur seen ndey ak seen baay man Cheikh Omar li ma am nu jël ko bokk ko te ànd jaamu yàlla ndax kat li ëpp doole li am solo mooy jaamu yàlla te fii nag yàlla def nu fay wàcce rek ngir nu jaamu yàlla kon ñëw leen nu ànd jaamu yàlla nanu laxasu jëm ci yàlla bala nu nuy laxas jëminu ci yàlla loolu nag mooy wax bi nga xamante ni mooy waxu dëgg-dëgg ki jige yàlla ki bëgg yàlla ki bëgg yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bis baa ngi noonu waa Thiès bis baa ngi noonu waa Sénégal bis baa ngi noonu ñi nga xamante ni ñoo nekk Ndakaaru présidente sa euh, muy euh, Ndeye Fatou Sakho macha allah ak taxawaay yëpp bàyyiwunu kenn bàyyiwunu kenn bàyyiwunu kenn yal na yàlla dafa leen jàmm zahiran wa batinan ci baaxu yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam oote baa ngi noonu ni dikk si jàmm te delluwaat si jàmm lépp lu nu am yal nu am yàlla lépp lu nu ñàkkit yal na nu am yàlla ci baaxu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Omar yàlla fi yàgg te si baaxu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bismillah